Sall mi fi jógee mi fi jóge ndax jàpp na ni daal luy jig jaaga moom mooy njàkk def na ay mbir yoo xamante ni euh, jot na ñu daal di càmbar anam bi nga xamante ni moom la yore woon réew mi dem bay def révélation ak jet boo xamante ni jënd na ko mu toll ci suñu euh, quarante quarante milliards ci suñu ay koppax ban jàngat ngay def ci révélation yooyu nga xamante ni Omar Sow def na ko. non daf <laughs> parce que xam nga wax boo ko rek ngay xool ki wax wax ji mooy kan donc dafa naa ne jàngat bi foofu la war a tàmbalee. Mm-hmm. kan moo wax a wax ji ku tudd Omar Sow la euh, nekkoon ministre conseiller defe naa su ma juumul à la présidence de la République. Mm-hmm. alors li mu wax mooy Macky dafa jënd jet privé à hauteur de plus de quarante milliards je crois am na sax lu ci teg mu ni génn na fi ci réew mi or bu bari ak ay ak ay objet pour yóbbu ko Maroc mais man li ma jaaxal mooy ñoom pendant tout ce temps là bi ñu nekkee ak Sall. Mhm. pourquoi il n'avait pas alerté en fait. lu tax waxul. Mhm. pourquoi maintenant parce que jaare li nga war a comprendre mooy ñëpp ñi nga xam ne dañu doon soutenir Amadou Ba en tout cas ñu ci bari bokk dañu nekk di solder des comptes ak Macky Sall dafa du règlement de compte lañu nekk di def. Mhm. parce que ñoom dañu jàpp ne Macky Sall dafa teg Amadou Ba ba pare. mais jàppalewu ko benn yoon au contraire da ko teg ba pare di ko yàqal ci suuf. di ko faqastal <laughs> loolu lañ jàpp ñoom. <laughs> mais ah mais bu amee aussi ñoomu nen la rek. Mhm. seen biir la nañ ko lijjantil seen bopp. Mhm. mais man pour man c'est pas c'est c'est inélégant nga ànd ak nit. ba nguuram jeex même pas Bassirou Diomaye euh, le président Bassirou Diomaye Faye gars yi ne naa bàyyi di wax bassiru Diomaye Faye ils ont raison wax nañ dëgg quoi. son excellence le son excellence le président <laughs> bassiru Diomaye Faye. Mhm. bi mu prêter serment ak léegi ñaata temps la yàggul nga commencé yow di génne ay mbóot yoo xamante ne du léegi nga ko xam yàgg nga ko xam mais kenn mësula ci dégg nañ bàyyi ànd jaayante bàyyante jëwante déglu baax li ma wax politique nañ bàyyi ànd jaayante bàyyante jëwante parce maanaam fekk ñu ngi ànd rek lu ñu def baax na mhm. kenn du ko wax mais fekk suñu intérêt mu ngi diverger lépp lu ma la xamal ci lu bon dinaa ko wax bu fekkee moom li mu wax daf ci am preuve yu leer nañ mais dëkk bi am na yoon. na dem mhm. nekk na dem nekk un lanceur d' alerte. Mhm. comme léegi lanceur d' alerte dañ leen di protéger. <laughs> xam nañ ko protéger. gars yi nee nañ boo boo boo li booy di wax ci internet boo jàppee sàcc boo ko yoolee am nga ci dara ñu compal la <laughs> mais na dem fañ ko war a waxee ñu compal ko bu dee li muy wax dëgg la mhm. parce que jet privé plus de quarante milliards gisuma fu ko Macky Sall di jënd. waaw ma xam ne bu ko jëndee ci sunu alal la ko jëndee. waaw. 40 <laughs> milliards di jaara milliard du caaxaan de. benn milliard mooy 1000 millions. xëy na ñun pauvres yi ñun moom boo déggee milliard rek mais 40 milliards et poussière ak ak or bu bari mais loolu bu fekkente ne li mu wax dëgg la dañ ko war a saytu càmbar ko. Mhm. loolu nag am na fu ñu koy defee. Mhm. du ci plateau télé yi du ci mbedd mi. na jël ay preuve am yóbbu ko fi mu ko war a yóbbu. ñi ko war a saytu saytu ko parce que nag dafa am loo xamante ne nag tamit moo tax acte bi Ousmane ko posé mooy nangu passeport diplomatique yu bari. Mhm. sëñ bi nguur noo ko yor pendant douze xëy rek dem comme sax non non yow da ngaa war a nekk à la disposition même de ton pays. Mhm. <laughs> pour bu ñu waree leeral yenn affaire yi. nga war a mën a ñëw leeral ko. mën a ñëw donc ay accusation la xëy na moom mi ko wax am na ci ay preuves mais su fekkente ne c'est affaire c'est très grave. Mhm. si c'est pas avéré aussi c'est très grave. Mhm. parce que mooy li ma wax léegi rek waxal nit loo xamante ne leeru la mais bu fekkente ne moom dafa am ay preuve na dem yóbbu ko fi mu ko war a yóbbu ñu ko war a saytu aussi saytu ko te leer na ma ne dinañ ko saytu. bu doon li muy wax am na bu demee fa mu war a dem dinañ ko saytu ba mu leer naññ. Mhm. parce que nag Macky Sall suñu alal la yoroon ñun ñëpp. waaw parce que comp ci jënd jënd avion loolu lu ñu war a leeral la. Mhm. loolu nag ay enquêtes yu mot sëkk moo koy moo koy firndeel du rek toog ci plateau yi di wax pour vraiment euh, def populisme ak yooyu. Mhm. c'est une question très sérieuse accusation yu grave la donc na dem fi mu war a dem ñi ci war a def enquête def ci enquête yu ci war bu dee dëgg la ñu woo Macky Sall mu delloo ñu suñu xaalis delloo ñu suñu avion delloo ñu suñu or delloo ñu suñu lépp. <laughs> bu dee du dëgg it moom mi ko wax aussi ñu teg ko ay daan parce que nag ay tuuma moom dafa bari ci réew mi quoi ci loo xamante ne tegu fenn mhm. Mhm. professeur waaw jaara ah euh, xam nga euh, nga nekk ci mbir dénoncé woo bàyyi ba mbir mi yàlla mhm. nekkatoo ci wala nga xaw am ay regret nga ñëw di dénoncé dénoncé pour qui en faveur de qui des Sénégalais te yow nga nekkoon foo xam ne sénégalais peut-être ñoo la fa teg waaw parce que ak poste de responsabilité boo mën a occuper sénégalais yi ñoo la fa teg sénégalais yi nga fa nekkal mm. léegi pour quoi ba nga fa nekkee waxoo li nga xam ni moo nekkoon problème nga ba ba nga génn et suñu fàttalikoo euh, le premier ministre Ousmane Sonko looloo ko dal mu am yoo xam ne daf koo génnee mu nekkoon problème te sénégalais yi découvrir luñ ko moom mu représenté fa sénégalais yi génnee ko pour sénégalais yi xam. Mm-hmm. et c'est ce qui lui a coûté encore une fois liggéeyam ñu dàq ko waaye léegi lu tax ñi nga xam ne dafa am fu ñu nekk pendant de années ñu war a mën a rendre compte sénégalais yi leeral leen leeraluñ leen waaye dañoo war a mën a bàyyi ba nguur gi wàcc <laughs> pour des règlements de compte. ñu ne waaw lii ak lii amoon na fi lii ak lii amoon na fi te yow ba muy am yaa ngi fekkee yow ba muy déroulé yow yaa ngi déroulé ànd ak ñoom déroulé man gëwma lool. Mm-hmm. ba pare man pour man war nañu yegg foo xam ne boo nekkee njiitum réew walla nga occupé yenn post de responsabilité yi nga xam ne c'est des postes stratégiques ngalawaay boo paree war ngaa rendre compte. Mm-hmm. Mm-hmm. ngallaawaay war ngaa def rapport gaa yi xam mais yow da ngay pare rek dem. def nga pare jébbal la ngay. Mm-hmm. nga pare def passation de service mu am peut-être benn euh, lenn loo xam ne da nga koy dëxëñ ci mbir nga ni lii nga fi bàyyi ce sont ces projets là ñoo nekk en cours yii doon nañ ko waxtaanee contrat yi ñoo kii mais yow moralement personnellement lan nga bàyyi. lan nga def lan nga entamé lan moo nekk pourquoi pas ñu war a mën a yegg foofu dem bay teg rapport yow jóge nga ci structure bi jaar bu so mais boo paree yow rendre ñu compte declaration de patrimoine yooyu dañ cee war a gën a gën a gën a gën a gën a insister mhm. encore une fois luubal bi nag ñàqul parce que chaque jour ñu toog fii wax ko luubal bi ñàqul ba pare pire mooy ni ñu doon luubalee dafa ëpp qu'on se dise la vérité ba pare tamit lépp lu ci mënti am ci luubal gi encore une fois c'est l'argent du contribuable xaalisu sénégalais yi moom la ñu jël parce que encore une fois mënoo fee toog 12 ans bu ñu estimé woon sa salaire mu nekk ay million par mois sax mënta nekk des dizaines de milliards en 12 ans. Mm-hmm. donc milliards yooyu fu mu jógee xaalisu askan wi la. nañ yërëm askan wi. Mm-hmm. jaara askan wi sonn nañ. sonn nañ de. <laughs> ci loolu lay ñëw sax euh, sànq professeur dafa souligner lu am solo muy euh, lu jëm ci déclaration de patrimoine bi euh, gis nañu suñuy jiit bu ñuy dugg ci nguur gi lañu koy déclarer mais bu ñuy génn du ñu def lu ñu te man pour man bu ñuy génn la ko war a mën a gën a def. moo ëpp moo ëpp moo nga xamante ni mooy mooy mooy suñuy ay koppar suñu ay ressources ak yeneen yu ni mel donc ñu yor suñu suñu àdduna yëpp mën nañu ko wax waaye bu ñuy génn dañuy gis ni dañuy yolleeku rek dem sans autant ñu xam. xam euh, lan lañu yor ba tey ñoom ci seen ci seen agafaat est-ce que loolu jotul aussi ñu ñu càmbar ko. waaw déclaration de patrimoine moom dafa nekk loo xamante ne gis nga dans une démocratie. Mhm. en tout cas boo xamante ne day fonctionner avec beaucoup de transparence kooku moom règle bu élémentaire la ci ci ci bonne gouvernance mhm. déclaration de patrimoine ñu laaj la ko ñu ñàkk la ko laaj nag maanaam dès l'instant que yow pare nga pour gérer des deniers publics sénégalais yi nga xam ne yow da war a yor seen alal war nañoo mën a xam yow avant ngay yor seen alal loo amoon. Mm-hmm. boo yoree seen alal ba noppi war na ñoo mën a xam waa yow sa alal jii nga amoon avant ngay dugg est-ce que méngoo na walla ak ndax am na lu ci yokk parce que te mënut a ñàkk. Mm-hmm. ndax di nga am salaire ak yooyu mais dinañ xool ndax liñ la dénkoon cofoo ci as lëf dell yokk ko ci sa alal donc loolu dafa war a nekk règle partout. ci képp koo xamante ne nag pare nga pour gérer des deniers publics moo xam nga nekk maire moo tax moo xam nga nekk ministre moo xam nga nekk président de la république ba ci les directeurs générau mm-hmm. nos sociétés la dañ ko war a def parce que ñoom ñëpp argent public la ñuy dundee. Mm-hmm. xaalis sénégalais yi lañ leen di jox. ministère yi année bu ne ñu dem assemblée nationale ñu natal leen ministère bu ci nekk ñaata direction nga am. Mm-hmm. donc loolu bonne gouvernance la dañ ci war a gën a taxaw. ba nga xamante ne tey képp koo xamante ne da ngay yorati alalu Sénégal waaye waaye ñu mën a xam loo am. Mhm. mais nag il faut que aussi ñu dooleel nos corps de contrôle. ba nga mhm. xamante ne tey parce que nag jaara prête noo yi mi ngi nekk tul lekk màll ci dëkk bi. ak a bëri. Mhm. maanaam da am alal bu dul jeex waaye amul lenn lu ne ci sa tur yow. <laughs> lépp say turu frère nga koy def. say turu xarit par turu am ñu sori. parce que doo bëgg link bi nit ñi teel ko xam loolu du fi jeex. démb wax naa la fii nee naa la ci am na ci ay ay ay ay ay bërëb yoo xamante ne ña fa ne leer na leen ne dafa am ay marché yu ñu fay exécuté. Hmm. dañuy dem créer ay société waaw mais société bi doo ko def ci sa tur. et des sociétés qui lay mujj doon et des sociétés qui n'existent que de nom. da dem créer benn société parallèle jox ko jox ko sa benn sa benn xarit bu sori. Hmm. def lépp ci turam mais fekk moomu ko yow mii yow yaa ko moom muy solutionné ci marché yi di gagné xaalis bi di delluwaat ci yow. conflit d'intérêt mhm. donc il faut que ñu renforcer nos corps de contrôle nos enquêteurs ba nga xamante ne tey boo defee déclaration de patrimoine nga ne man lii laa am ñu saytu ko dëggantaan. Mhm. xool ndax li nga wax dëgg la wala du dëgg. mooy réforme yi ñu war a def. Mhm. boo paree aussi nga ne man kat gérer naa alalu réew mi ba pare waaye lii laa am ci alal mais ñu saytu ko. mais fekk renforcer wuñ nos corps de contrôle. tey xoolal xoolal xoolal ce qui s'est passé au conseil constitutionnel maanaam da ngay ñëw rek def benn këyit <laughs> déclaration sur l'honneur déposé ne benn nationalité nga am déposé <laughs> c'est-à-dire que kenn fekk kenn deful recours conseil constitutionnel mënul sax dafay enquête pour vérifier kii li mu wax dëgg la wala dëgg donc loolu aussi dafa bokk ci réforme yi ñu war a def il faut que ñu gën leen dooleel ba nga xamante ne tey boo ñëwee ne man lii laa am loolu nga wax ñu xool ndax dëgg la wala dëgg balaa ñu cee sori boo paree it nga rendre compte loolu moom. waaw maanaam reddition des comptes dafa nekk loo xamante ne principe de bonne gouvernance la. waaw mhm. loolu kenn warta xaar sax ñu la koy laaj. bu fekkee sa alalu bopp nga yor nag yaa xam. waaw boo nekkee ci privé nga nekk yaa xam waaye nag public nga xamante ne xaalisu askan wi yow ngay liggéeyee. boo paree da ngaa war a rendre compte. et loolu dafa nekk loo xamante ne une obligation la et que réforme yi ñu war a def aussi man j'aimerais bien que ñun suñu agents yi ñu leen di évaluer. surtout ça. par exemple Sénégal les fonctionnaires. Mhm. ñu ne non léegi désormais par six mois dañ leen di évaluer tegal leen des indicateurs de performance. Mhm. tegal leen ay obligation de résultat. Mhm. ku ko ci deful ñu remplacer la parce que nag tappale bi sa waay dafa bari ci administration bi. trop ñu leen neex la ñuy recruter ndax politique xamuñu ndax am nga compétence yi wala déet nekkal jarbaatu waa ji wala nga nekk rakk waa ji wala nga nekk rakku jabaru waa ji ñu jël la. ñi am compétence ci administration yi sax dañ leen di piétiner une évaluation permanente de notre administration dañ ko war a def am na am na ay réew yu koy def nga xamante ne tey yow agent bi pour nga avancer mhm. dañ lay évaluer mu am ay critères boo ko satisfairewul mais ñu teg fa sa morom parce que nag saa waay ñun ñu dével li ñu tardé ci développement dafa bari faaw ñu xool naka lañ koy accélérer mhm. mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour que réew mi mën a mën a mën a joyantiku de façon définitive mhm. professeur waaw euh, ah jaara affaire yi daal <laughs> gis nga gis nga mbir mi daal. Mhm. mbir mi daal dafa am dafa am nu mu nu mu nu mu nu mu war a doxee. je pense que administrativement parlant ñun dafa am yenn stade yoo xam ne war nañ koo dépasser. dafa am niveau yoo xam ne tey jii nii war nañu mën a def de telle sorte que encore une fois buñ fi yeggee ñu xaw a. am culture wu ni lii du suñu yëf. dëgg la la. Mhm. lépp rek mu ngi déparé ci rendre compte bi ma wax sànq xam nga nga nekk fonctionnaire nekk milliardaire loolu ça mérite vraiment des réflexions parce que mënta nekk yow dañu la dénk boo paree nag gis nga déclaration de patrimoine bi ñuy wax luñ la dénk la lii alalu askan wi la lii c'est une structure bi nga xam ni. askan wi moo ko moom. Mm-hmm. yow da ngaa pare ba ko fa bu doon li nga moom la boo paree dañ lay doon parce que c'est privé mais yow da ngay pare ba ko fa keneen ñëwaat mais yow diggante bi ngay dem diggante bi nga fay nekk ak bi ngay dem yow tu deviens quelque bi nga xam ne fortune bi ngay am kenn mënu ko expliquer pendant ce temps ñu ne waaw. benn mérite nga am pour am fortune boobu noonu benn mérite nga am pour am puissance financière boobu mooy que parce que tu ministre wala parce que tu directeur général ñu teg ko fa ñenn ñi dem nañ ba ci seeni askan wala seeni njaboot. Mm-hmm. dañuy yor ay nag yoo xam ne c'est des ça coûte des millions. Mm-hmm. nga ut ferme boo xam ne loolu pour nga gis ko Sénégal sax c'est tout un problème. Mm-hmm. ñu ne waaw doomu diw la parce que doomu ministre la mérite boobu rek rek rek rek rek peut yow nga am pour am loolu noonu. ba pare nga pare yi di ko gis ñu koy dugal ci réseaux sociaux yi bëgg ñoo gëmloo ni doomu ministre bi wala doomu directeur bi ni exemple la pour la jeunesse bi nga xam ni. dafa war a góor góorgóorlu gëm boppam investir liggéey entreprendre. Mhm. am na solo sax mais mais mais soo see euh, doguma la professeur euh, démb euh, doyen Adama Gaye la ñu dalal si plateau bi. Mhm. mais ñenn ñi jàpp nañu Omar Sow voilà li muy wax wax yi yow nga xamante ni yu daanu ci ci charrette la mais démb la ñoo gis doyen Adama Gaye mu toog moom aussi def ay révélation yu nga xamante ni yu doy waar la ci nguuru président Macky Sall ci ci Macky ak ay ñooñom ba ci Alioune Sall rakkam. Euh, donc euh, président Diomaye bu mu egsee li mu njëkk a teg ci kaw taabal bi maanaam càmbar maanaam reddition des comptes ci ñenn ci ministères yi wala ci gouvernement bi fi jógee est-ce que jàppoon ni dafa jot ñu topp leen ndax nag euh, wax dëgg fa yàlla jot na ñu leeral càmbar ñoom ñi nga xamante ni ñoo yoroon suñu suñu suñu suñu ay koppar fan la ñu ko duggal ndax nag li ñu di dut baaraamu tuuma bari na loolu jamono ci ñu nii. jaara gis nga wax naa la fi démb benn affaire. Mhm. am bépp rapport boo xam ne Macky Sall moo ne woon moo ci teg concoow <laughs> concoow boobu teggi nañ ko teg fee. Bassirou Diomaye le président Bassirou Diomaye Faye. Mm-hmm. ak son premier ministre Ousmane Sonko. ils ont tous les dossiers tout lu ci des nag mooy volonté politique est dinañ ko càmbar wala duñ ko càmbar loolu fi toll nii ñoo ñoo am seen cëggal guy comme ni ko gars di waxee ci ñoom rek la des. Mm-hmm. lépp lu fi waaye doon nëbb ci nguurug Macky Sall da lay leen ne régime boobu jeex na fi mu toll nii le président Bassirou Diomaye Faye a accès à tout rapport am naam amul. Mhm. fépp lu ko neex mu lijjanti ko. Mhm. et nag mooy li ma la wax léegi gis nga ku yaakaar ne da ngay da ngay yor alalu réew mi def ci lu la neex parce que sa sa mag président la wala sa rakk ministre la yaa ngi nax sa bopp. jeex na loolu jeex na ci miim réew. tous les rapports dama la yi fi jot a jaar ba ci yu ci mujj. Mhm. Covid bi moom moo mujjee. mais boobu la ñu war a njëkk a càmbar day d'ailleurs parce que boobu rapport bi sénégalais yëpp lire nañ ko mais li ci gën a neex mooy rapport bi dafa cité ay tur yu bëri def ay recommandation ci ñoom ne leen ñii dañu war a ubbi information judiciaire ci ñoom ba pare covid bi temps bi daa guddul sax division des investigations criminelles ubbi woon na fi ay ay ay kii ah, ay audition enquête mais loolu Mm-hmm. loolu jaara du tàbbi géej de mukk du tàbbi géej dama ne la di di dinañ ci waxaat <laughs> yii ma lay wax nii dinañ ci waxaat du yàgg dara parce que duñ ko bàyyi. Mm-hmm. alalu réew mi képp ku ko yoroon def ci naka sudut noonu yaa xam nga ne Londres yaa xam nga ne Sénégal <laughs> yaa xam nga dem umra ji. nga ne fan da nga ne fan kan moo dem Londres. Londres waaw. kan moo nekk Londres jamono ah, ah, ah, xam dama ko wax noonu rek. am na kuy laajte nee na ñu umra ji kañ la ñuy ñibbisi. déggoo ma de. ñoom ñoom fi bëgg a yàgg di. <laughs> jaar ku ñëw sax la jëli. dañoo war a ñibbisi de. non ku ñëw dees na la jëli. dañoo war a ñibbisi de. Mhm. monde bi léegi sa waay xoolal amatul fenn fu nit mën a làqatu ba duñ la luqati. amut. li ci li ci li ci li ci li ci doy sëñ bi. mais dañoo war a ñibbi si nag ñoom dañoo war a ñëw de. mais di gëm non dama ne yow da nga pare di dem ay ay ay ay ay ay dëkku jàmm. non dama saa nga nekk Londres rek <laughs> nga ne Arabie Saoudite ak nekk feneen a ci yam nekk Dubaï. xoolal suñu alal. dañ leen ko càmbar lépp lu ci nit def mais jaar xanaa gisoo Sénégalais yi ni ñuy souffrir eh? mm-hmm. et on parle de milliards ak c'est des milliards te milliard am fu mu xaj. ba nit ñi ko tungaay xañ dem xañ xañ jàmm de million de sénégalais après ñu ne kenn du ko càmbar. dëgg la am du dëgg nañ ko topp ba mu sës bu dee laal nañ ci as lëf te pourtant Bassirou Diomaye le président Bassirou Diomaye day am na am na lettre am bii na ko gars yi demaat liiraat ko de gis nga lettre boobu du lettre du du ngi si de bul yaakaar ne dafa dafa xëy nii rek am envie bind de. duñu lettre lettre de. wax la de. wax la mhm. wax de wax ci li fi jot jaar wax pour liy ñëw. Mhm. maanaam à partir de désormais comme ni ko gars di waxee képp ku fi dox ci loo xamante ne jubut yow mi koy def nga dëng ba pare boole ci li nga war a jubbanti yëpp nga koy gën a dëngal. Mhm. di nga ko digaale ak réew mi. bu ñu réew mi nag mooy yor moom fa mbaxane doone benn da nga fa dem. ñuy jot a yor suñu réew. pendant douze ans. Mm-hmm. ak scandale yi fi jot a évoqué yépp dees na càmbar lépp ba sénégalais yi xam lan moo ciy dëgg ak lu ci du dëgg. surtout loolu. Mm-hmm. kooku li booy booy di wax demande social demande sociale demande sociale la. Mm-hmm. xoolal Covid bii ni mu ni mu yàq économie réew mi ay nit jël seen ñaq contribuer ku mën ne sëñ Mountakha mii le président seeti woon démb. joxe joxe ci xaalis bu dul jeex. keneen joxe keneen joxe keneen joxe waa sawaay ñu ne xaalis boobu daal moom am na am am na luñ ci luubal. Mm-hmm. da yaakaar dañ koy bàyyi noonu. duñ ko bàyyi noonu de. am na solo. lépp bépp recommandation buñ ci def man damay damay damay damay ñaan. Mm-hmm. le président Bassirou Diomaye fay ak son premier ministre nañ ko topp jusqu'au bout képp kuñ ci tudd sawaay bu fekkee la nga jël delloosi ko ñu teg la ci ay daan. bu jaree leneen sax ñu def ko <laughs> parce que nag alal bi nit ñi dañuy sonn di fay impôt taxes yi mel na tulleeg male mais alal jooju ñuy dajale benn nit bëgg ko jël bëgg ko def ci poosam. yaakaar ne moomeelam la mais bi loolu dafa ñaaw. Mhm, mhm. donc il faut que ñu dem ci loolu et nag mu nekk loo xamante ne règle lay doon de façon définitive dans ce pays. ba mhm. képp koo xamante ne tey joxati nañ la argent public. boo koy laal nga maanaam nga laal ko avec des mains qui tremblent. Mhm. que yow da ngay xam li la ci mën a fekk lan la. Mhm. Mhm. mais fekk yaa ma neex ji. fekk bras long bi mi ngi fi fekk sama mag ministre la sama rakk président de la république la lu ma neex def ci réew mi loolu ku ko moytuwul sëñ bi yaa ngi gasal sa bopp pax boo xam ne boo ci duggee kenn du la ca fekk. am na solo ñu dem ci suñu ñetteelu euh, point euh, ñeel euh, suspension de la vente de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor Bassirou Diomaye fay jamono ji ñu toll nii dafa daal di mm. gàntal li nga xamante ni moo ñeel kiiw président Senghor boobu nga xamante ni dañ ko bëggoon daal di def vente jamono ji